Euh, monsieur le président chers collègues je vais évoquer l'article 62 parce que dama seetlu ne wax dëgg le peuple sénégalais bi amoon droit de faire fii l'article 62 dit les séances de l'Assemblée nationale sont publiques ci beneen alinéa dañuy wax la décision de huis clos peut également être présentée en cours de séance te gisuma fenn fin ko def dans les deux cas l'Assemblée se prononce à la majorité des membres présents lan ngeen di nëbb sénégalais yi ba moom mun leen leen may ñu ñëw parce que gis naa am ñu fi toog mais gis naa ne sénégalais yu bëri ñu ngi doon au niveau de l'Assemblée nationale pour xam lu fi xew te permettre leen ko ñu xam plus grave encore gis naa ngeen coupé internet bi pour lan lu ngeen di nëbb yéen ñii ñoo leen privilège bu nous nationale sénégalais vous ah, sur la question d'accord. je suis sur la question Mané, nous, nga Nous avons nous privilège proposition c'est illégal c'est illégitime et très dangereuse quand même mais restriction de liberté ak droit. fii lañ ko fekk pas plus tard ñaari journaliste soxna Ndaak Mbacke Agora TV Mbenda Diouf ITV sol nañ seen i gilet yoroon nañ seen i te teewul dañ leen a jàpp dóor leen dugal leen ci dugal dugal leen ci kii jàpp leen démb démb Massata Samb muy représenté institution te nee ngeen kat commission d' enquête parlementaire bi c' pour redorer le de l' assemblée nationale moo tax ngeen def ko boobu ba tey yéen a ngi jàpp ay député japp ngeen dembu rokki Ndiaye japp ngeen dembu massa tassam jappon ngeen fi Cheikh Thioro Mbacké ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay ñom Samba Dak waaye lolu mënuñu bet motax damay leen defal ben film touti est-ce que yeen xam ngeen film yoy ñi seetaan nga xamne on revient sur le passé je vais vous dire plutôt en 2011 2012 maa ngi seen pañas bu yor xeer bi Paa Moustapha Niass nekkoon fii président de l'Assemblée moo yor xeer maa ngi koy séen nii maa ngi koy gis ci film bi nii en maa ngi gis président Macky Sall yor maire gàddu bi maa ngi koy gis nii j'espère que yeneen koy gis ndeysaan maa ngi gis waa Yaana Mar Thiat Khalifa Fadel Malal Tall ñëw taxaw temb ñoom Guy Marius Sagna waaye ndeysaan seen xol daa mujj naqari ñu naan même chien yi même chat yi effectivement effectivement ñan ñoo porté waat ñan ñoo porté waat loi car bloquant ku ko porté woon PDS kan moo porté waat loi bu liberticide bii kan moo ko porté waat PDS kan moo ko ci jàppale PDS APR PDS rek la maa ngi xool maa ngi gis nii commissaire Arouna Sy gazé le dégagé le ana commissaire Arouna Sy nañu delloo si suñu xel yi ana ñu tey te ñooñu peuple boobu moo leen xeexaloon ba ñun ñëpp ñu toog fii tey ndeysaan Mamadou Diop dem si yàlla si yàlla ko yàlla xaare àjjana moo jiite woon keroog timis ji julli ga dragon moo jaar ci kawam anamu tey te kooku moo waraloon tey jii lii am tey jii ñu ngi suyee mémoire am président Abdoulaye Wade nag ci baaxam reculé woon na retiré woon na projet bi ci baaxam retiré woon na projet bi waaye nga la président Macky Sall foofu nag nañ fexe yow nga delloo si sa xel nga xool nu président parce que président Abdoulaye Wade lu mu def

ñaata sénégalais ñoo nekk ci prison yi ñaata sénégalais ñoo dee ci mois de juillet ñaata sénégalais ñoo dee mois de mois de mars ñooñu amuñu ay droit seen i parents amuñu ay droit ma ne ñun ñu ngi def lu ñàkk fay amuñu fay la de suñu mission tamit xamuñu ko ndeke on est des députés du peuple on doit représenter dignement ce peuple là man de man ak ñi ma àndal nous représentons dignement ce peuple là merci merci